foofu noonu amaa combat mi am jafe-jafe yëpp nees guy gi da cee bëre ba sonn poam bi tey loolu question la ci ñaareel bi mooy public bi bootu ci ginnaawam nga war a bëree ku ci mel ni Modou Lo nga xam ne bandi géew la. waaw bëri sa dëkk dafa metti bëri biir Pikine dafa metti te en mi ngi door a mi ngi door a bëri biir Pikine euh, arène nationale jege ko lool. donc loolu mun na nekk pression bu positif comme mun na nekk pression bu négatif pression positif mooy bu Ama entraîné bës bi bu entraîné bés bi jox bës bi àqam jox ko li mu war jox ki muy bëreel àqam bañ a xëcc benn pression ci moom wala entourage am gis nañ ni frère génn na ñëw na Paate Baldé ku ko xam xam ni champion bu mag la mm-hmm. te ku ko xool ci ni muy communiquer fan yi xam ne am na lu mu décider ci combat bi moo tax combat bi chaque jour man damay ñaan toujours dernier minute ci diggu géew bi ñu ñu sécuriser enceinte bi ñu sécuriser at parce que dara mënul yàq làmb ji dulul ay histoire sànni benn affaire bu ndaw wala sotti ndox ñin ñi dóorante làmb ji yàqu